match exceptionnel bi gën ay merengue yi nga xam ne ay remplaçant lan daanaka bu ñu doon am fële nga xam ni mooy Espagne match boobee nag gën ay merengue yi daanaka football nan fa match bu mucc bu ñëpp jàpp ni match boobee daanaka li ko tax a jóg ak waajtaay la waaye du match bu dëgër boo xam ni amoon nañ ci yaakaar yaakaar jan am nag ña ngi koy xaar ca Manchester City bi ñu war a dem ci àllarba bii ñu dëgmal àllarba boobee nar a nekk bu am solo ci Real Madrid gone yi ña nga woon fële ci Real Mallorca Mallorca nag teral leen ci teraanga joo xam ne daanaka kii di cubu tooy ci waa mi moo daggaate carte gi rajaxe foofee nga xam ne daanaka loolee première mi boo xam ne zéro bi zéro passe décisif boo xam ne am na ci match ba ñeent fukki minute ak juróom-ñett séngam maanaam bi nu football yooyu ñeent fukki minute ak juróom ba teg ci aslëf la équipe bii di Real Madrid daal di tugal bit boobee nag ki dugal di Tchouaméni Couboutoy waaye si nga am nag moom it gis ngeen ni am na fa taxawaay boo xam ni bu am solo la ci équipe bi am ni ñoom ñëpp mboole seen daanaka teg nañ ci taabal ji leer ban tegee ci taabal ji lu leer tourné teg ci bopp classement bi nga xam ni daanaka na naññ ni Banjul kii sondeel ñoom goney merengue yi ba tey ji ñooy wéy di des ci li nga xam ne mooy bopp classement boobee ca championnat Espagne ndax ñoom am na lu toll ci juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñett équipe bii di Barcelone toll euh, ci ñett daanaka digóor bu xaay la Barcelone mu ngay wuti nag fële ca kanamu Real Madrid daanaka du ko may dara ci kanam tuuti ci match bi nga xam ne Barcelone war na koo football waaye nag bu ñu demee ci bopp classement ba ba delsi fa dañuy delsiwaat ci kii di ci waa mi ni moom mi dugal bit boobee taxawaay am solo waaye Bellingham mi nga xam ne bi match bi jeexee daanaka yooyu ñëpp dañu koo dar coros yi ngeen di gis yaakaar naa ni bokk na ci fans yi nga xam ni mayuñu ko tous tasar ci ñax mu tooy ma nekk fële ah, ca Espagne loolee nag ñu mën a tax ñu dem ci Manchester City mi war a dajeek équipe bi la di Madrid ñu koy xaar ak pied ferme ndax daanaka équipe bii di Manchester City ak alaan mi nga xam ne bit bi ngeen di gis daanaka coppati na ko mu net bis bi boo xam ne occasion ba na mu mel ko daanaka teg jeexal goo xam ne goney City yi teg nañ ko ci taabal ji di xaar fii ak ñetti fan séngam àllarba ci ngoon bu 19 heures jotee ci Canal Plus Sport 1 ñëpp di bàyyi xel City nag daanaka pare nan uniquement ngir mën a tëj ci goney merengue yi waaye naa ni Carlo Ancelotti ak ay doomam ak i goneem duñu ko nangu